لي سكينة بكل bi من داري من يعطى المنة لي سكينة بكل الجنة ñu ngeek euh, beneen borom xam-xam keneen koo xamante ni euh, teew na li nga xam ne moom moo di euh, ndaje mi muy Serigne Mbacke Abdourahmane moom depuis si suba mi fi ba léegi sëñ bi mel ni euh, Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké euh, soññiwaat na ci li nga xam ne moom moo di xam-xam ndax xam-xam dafa nekk loo xam ne am na solo lool surtout ñu gën a euh, tàggataat ndaw ñi def ci ñoom li nga xam ne moom moo di xam-xam. waaw kay asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu la sant bu baax yéen itam sëriñ bi. mooy sëriñ. teral borom xam-xam yi sargal leen kañ leen moom nag kenn la ci ñooñu doon ku magit xam-xam-xam ak soloom ak nim doone lu mënta ñàkk waaye yéeneem bëgg ñëpp jàmm bëgg ñëpp tegu ci yoon taxit mu fas yéene ñëpp bëgg ñëpp am xam-xam mën nañu wax ne loolu moo tax woote bi ndax boo seetloo ni mu waxee rek danga nga yëg ne bu su ne ñëpp xam ndax bu ñëpp xamee rek ñëpp jariñu xam-xam bu am jariñ lor nekku ci loolu la ñu bëggal tey it nag tam liwu ko tey ay at a ngi mu di ko woote tey du jataay bii rek ci la koy male mi ngi teral borom xam-xam ci anam yu ne dégg nga léegi sëriñ Mamour lim ci ay taranga yooyu mooy yiñ mën a lim waaye am na yoo xam ne kenn mënu ko lim mu jox ay nit waaye boo demee tey ci pencum sëñ Basiru fekk fa taba boo xam ne la fa ne ci ay téere néew na fu mu daje man na ma wax fi ne tey ne xam-xamu sharia rawatina lu ci ay mazhabu Malik maraaje yañ ca soxla yëpp sëriñ bi wuti na ko ñàkk ci alal yu bari ñëw def ko fa ngir bëgg ñi toll ci gëstu luñ soxla mën ko fekk ak taxawaay yu bare bare la dañ ñaan li ñu def mooy ko ñaanal suñu moom sàmm ko dëgëral ko daara mu naalit mu àgg ba mbooloo génn ci ci kanamam loolu lay ñaan suñu borom ñu bëgg nag kàddu yam yoo xam ne yëkkati na ko moom it mu nekk kenn ci yenn borom xam-xam yi kilifa yi nga xam ne àndoon nañu ñoon ak moom li nga xam ne moom la Cheikh Mamadou Mountakha woote woon fii nii ci résidence euh, Khadim Rassoul bi nga xam ne moo nekkee ci Darou Manane mu nekk kàddu yoo xam ne am na solo lool waaye tamit dégg ngeen li nga xam ne moom la sëriñ bi wax dajale borom xam-xam yi sargal leen kañ leen euh, mu nekk loo xam ne at mu jot da koy def depuis boo ak léegi am na juróom-ñaareel at ci ren ji donc ñu koy ñaanalaat bu baax a baax a baax moom sëriñ Mountakha Mountakha Mbacké Bachir mu yàgg fi loolu tànd wér waaye tamit di ñaanal tamit mboolem kilifa nga xam ne teewoon nañ fi ak projet bi nga xam ne sëriñ bi moom la fas yéene ànd ak mboolem taalibe yi muy université euh, bi nga xam ne complexe bu mag a mag la te sëriñ bi fas yéene def fanweeri milliards ak juróom ñaar ci suñuy koppar ñuy ñaan yàlla rek ci barkeb Cheikhul Khadim mu àggale ko jàmm ànd koog mboolem taalibe yi ba naal yeneen naal mu jëm ci euh, yoonu murid gi di sant bu baax yéen euh, ñi nga xam ne yéen doon bàyyi xel sen chaîne académie nag di leen sant leen gërëm ci teewlu gi di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu li sadinatan bi li sadinatan min daari minan yaatal minna